fi ne moo fi ne te lafañ boromi mbaam lay àndal xuuge xuugay mbokkam jigéen piir jigéen bu raxul dara dara dara nga xam ne góor ni góor moromam lay wër jigéen kese kese kese kese kese du ànd a góor jigéen jigéen bu fi ànd ak góor jigéen caga nga mbaa nga doon lesbienne te ma de <laughs> boo ma yëngalee dëkk bi yëngu nag boo ma wax loo wee dëkk bi yëngu dama am kilifa nag xam kuy sama kilifa dama may mak am ay fami am ay ñu baax ci internet bi nga xamne ne bu ñu déggee càppel rek dañu may wo téléphone daal bay bu wax ndax man sama wax du jam dama tik, dama tik dem ko muñ mënuma ko muñ bay modou kan fama wax ko dama ko muñ mënuma ko muñ fama wax ko bay modou kan wo nga ma ñaan ma ñek wax ma lu rafet tax deug fayal may la duma wax waaye bu dee rusul tàggatu rus jigéen war a jukku jur war a yërëm war a am sutura ci doom ah ci doom ci ci ci ci ci nit waaye danga koy weer waaye booy weer nit ki day fekk nga xamal ko loo ko weere man gàcce nga alaama ma baat ni poto man Zale Mbaye gàcce nga alaama sama baat ni poto man doo indi sama preuve yow teg yow ci loo ma xamal ci lu ñaaw déedéet ku ma àndal sama bakkan gi laa ci gar man ku ma àndal sama bàkkan bii laa tigal ñett moo fi am góor jigéen caga ak lesbienne ñoo fi am te mbaam lafañu mbaam euh, lafañ boroomi mbaam lay àndal xuuge xuuge mbokk bu ñu àndee 15 ans lu ñu ànduloo 15 soxna si lan moo ñu ànduloo 15 ans lan moo ñu ànduloo ñi may woo yen a ngi may tooñ yéen ñi may woo yéen a ngi may tooñ duma leen jël bu ma kenn koo àndal 15 ans ku ne nga xamal ko lépp xamal ko barki démb ba xamal ko démb xamal na la tay man nu ma manti mel tubarkaala sama famille dañ maa bëgg respecté ma xam maay kan man samay mag yëpp la ba sëy jotee rek la nu sëy Fatou bi sëy jotee rek la sëy tubarkaala uuf sëyul ba tas la am doom ju mag jël xale bu ndaw a ndaw a ndaw parental bu ndaw tubarkaala bu bëccëgee doon doomam bu guddee mu doon jëkkëram déggoo ma de bëccëgee mu doon doomam bu guddee mu doon bu mu doon jëkkëram barkaal laa ji fàllu du dangaa mën a wax rek di wax maag yow a dal nag moo ma dal ndax xamal la dal loolu moo tax mu dal ma da danoo bokk man a yow lu ñuy dund nday dundul ci sa cadre baay dundul sa cadre man day dund sama cadre baay dundul sama cadre man aw ku ma naan man aw ma ku li nga wax rek moo ma dal aw ma ku la naan la noppil bu wax man aw ma ku naan ma tubaab kaa noppil bul wax de góoma de man bu ma der nit duma deglu nit nit nit nit dina xam bu baax baax limay wax ndax nit mënoo and ak 15 ans ba pare bëgg a bëgg ko xamal lu baree bari adna du ko wax te yow du la xamal dara ca da fi nekk góor jigéen lesbienne ñu and dañu xamanté demb xamanté ba ki ba fiñu ko toog ma wo nak yek ñaan ma motax du lay bi sax du gudd lay bi may wax ni dama lay ñamali rek ma nga gennat bo gennaté mama salila lii ñamale dongu la tubaarkaal la yéen dongu la tubaarkaal téeñ bi ñëwagul lii yéen bi dongu la téeñ ñëwagul dama lay ñamal dongu ba nga génnaat may ma ma ma ma téeñ la yéen bi dongu la téeñ bi di ko gut xale bu ndaw tubaarkaal la prental bu ndaw xale bu judduwul nga xam ne boo doon béy caatloo ko boo doon béy caatloo ko jël ko tubaarkaal la maasàllaa di ko tëddee guddi di ko tëddee bëccëg di ko tëddee suba di ko tëddee ngoon xale bi mënul am carrière ya. morom yam carrière ndor yëpp tubaarkaal ñu di dégg ci kaw ci kaw ci kanam ci lu baax waye mënul am carrière xam nga mënu am carrière carrière mën ta baax ndax xale du tedde mak xale du tedde mak xale bu fi bu fi tedde mak sa carrière du dem ci kawam mal ko xale du tedde mak xale bu fi tedde mak sa carrière du yegg xale bu fi tedde mak sa carrière du yegg bu bëccëgee nga don sa mu don sa doom gëmloo àddina yëpp sa doom la du sa doom bu bëccëgee mu gëmloo àddina yëpp sa doom la bu guddee tubaarkaala mu doon sa jëkkër di la ko jox ak di la yóbbu ak di la indi ak man xam nga ne tubaar yow xamoon nga ne xamoon nga ne boo xëyee rek ñu bokk koñ bii tubaarkaala nga ne sama ginnaaw fii yow xamoon nga ne boo xëyee rek boo xëyee boo xëyee wax ñaari baat rek man dinaa xëy wax la yow xam nga ne boo xëyee wax man midi et demi rek man midi midi rek ku ma ko wax rek midi et demi sa kaw yow xamoon nga loolu xamoon nga ne sax tubaarkaala ba ngay wax kooku du daan bay man a ma lu may daw sama laay aw ma lu may ragal man ci dëkk bi laa dëkk xam naa samay devoir xam naa samay droit yow xamoon nga ne boo waxee tubaarkaala jox ma góor jigéen mën naa ne waaye tubaarkaala góor jigéen ak cagaay ànd mbaa mu ànd ak lesbienne loolu dong la ku nekk ci bu gudd bi rek yaa ngi ci gàtt bu gàtt bi jigéen kese kese kese bu raxul dara raxar raxul dara dara dara nii nu soo taxul caag rek soo tëddul nekkul lesbien barke allah ci faal du ànd ko jigéen xanaa kon sept laa commencé ànd ak yow man 15 ans boo ko génnee ci ma sama samay at dara desatu ci sama biir mooy àddina sama biir bi mooy àddina sutura Maamutoo sutura dinaa wax tubarkalla fanoo àndoon ca paawu sëriñ ba nga jugur jugur ànd ak man waaye dama am sutura dama sëriñ bañ àndoon dinaa dinaa la ko wax waaye nag gàcce ngaa laa ma ku ne ma am bàmmeelu biir du ma wax damay les tombe yow xamoon nga ne leeroon na la bir na la biir yàlla daal mbay du ca puuca yow loolu xamoon nga ko xamoon nga ne Zale mbay du ca puuca xamoon nga ne Zale mbay boo xëyewoo neuf heures laay fal ko tubarkaal man xanaa xamoo tubarkaal la man man reeru moor laa guddee du ma tee man baay reeru moor laa guddee du ma tee yow xam nga ne tubarkaal la bi tënt doo nga ma dal ak guddee tënt waaye su yeewoo tubarkaal la maa sàll xamoon nga ne bal dina tàkk sax xam nga naa la wax ñaari baat te dama lay junj donc duma la wax lepp nag ba nga gennat bo génnaatee mu neex te du jeex bo génnaatee mu neex te du jeex bo génnaatee ma wax la la biir yi nga yaq ci rew mi ma wax bo boo ma wax la tubaarkàlla paa bañ a man ak yow la nga yaq ye fi bo génnaatee ma wax la la ma sala li nga fi def yëpp ci rew mi ma di ko wax ma it xaar duma ma waxaat nag maa ngi dagg lay bi mën ta ñàkk man xale bu ma doxut duma la day li ma wax démb rek xale bu ma doxut duma la day dama ibbi foofu tëmbal la ci nga lakk takk day man boo ma daxotee nga foon dama lay day du la day dama ibbi foofu tëmbal la ci nga lakk takk day ba ci kanam ngeen ba pour be fi mom ku pour be pour be bi tak ci ori jotee tak ngeen ci ori bi dawal ci ndaamaari jotee gaare ngeen ndaamaari ajot mam Njaay ñaata ndamar nga am am nga ndamar yu bari damari, sa buntu place am nga ndamar ba am ndamar bi bu sa bu yek diwi ajot mam Njaay am na ndamar ba am ndamar bu jëli sa bu ak diwi di indi di touri mbalit bi ñum ndamar do du bar rek nak ajot mam Njaay ku amul ndamar nak sa xol be jeex rek ku takul ci oori tak tak yi loolu yow la ajatu bam day tak na ci tak tak yi fàtte bam ñaata auto gam da melni ñaar gam xaw ben way waaye nga ba am auto rek fexe nga ba dawal ci auto yi fante mbuk fexe nga ba tak ci takk ci oori yi tak nga ci oori barka la ci faalu mbuk tak nga ci oori dawal nga ci auto yi maj at mam jaay njaay a ba az nga yóbbu sa papa màkk maam jaay sa foo barki dem bi nga yóbbee sa papa màkk maa ko fekkee woon keroog ba nga koy daggal biye ba keroog bañ koy nganale dañoo nganale sa goro tey ñu nganale sa sa papa suba dañoo nganale sa goro tey sa goro sa yaayu jëkkër dañu ko nganale tey jii nga nekk fa def fa loo mën ak loo mënul maa ko fekkee ci lendemain bi nga nga ñu nganale sa papa tuwaawoon pël kenn nettali ma fànjaay ci laaj bi duma bàyyi ma fen ma nga woon ca nganale goro ba ma nga woon ca nganale baay ca baay ja